léegi nag suñuy ñëw si vif sujet bi mooy lu jëm si gestion wu Covid 19 bi maanaam ñu koy tuddee coronavirus d' abord il faut ñu dégager les principes ba pare wax lan moo ñu euh, pousser à chaque fois ñu joxe suñu point de vue si mbir mi ak nan ban façon lañ koy defee ak nan lañ ko bëgg a defee soo àndeek chauffeur mu doon sa xarit mu doon doon sax sa xarit muy dawal ngeen jóge Dakar di dem Tambacounda wala di dem Ziguinchor. ñu ngeen bokkal oto bi yépp dañuy ñaan moom mu réussir dawal ba yegg parce que suñu bakkan si moom la fës si moom la si moom la dépendre su dawalee dawal bu bu jaarul yoon ñu ñëpp ñoo siy pate donc ñëpp dañuy tàllal seen loxo ñaan pour mu yegg si jàmm ndax su yeggee si jàmm ñun tamit ñu yegg si jàmm donc même logique boobu la ñu am ak autorité yi maanaam tey dañuy ñaan dañuy ñaan pour ñu réussir waaye soo àndeek chauffeur tamit muy sa même su doonoon sa xarit doo ko bàyyi mu nelaw si yoon bi nga xamal ko ne ko ah sëñ bi de suñu sañoon nga defee nii wala nga defee nii wala ah dafa mel ni da ngay nelaw wala boo téléphone bii nga jël di woote di wax leneen loo xam ne bokkul ak yoon bi ah bëggoon nañ nga teg téléphone bi soo ko soo ko mënoon teg de dina baax donc loolu mooy artu loolu nag ñu bokk même oto bi ñoo koy defante seen biir ñu dañoo bëgg mucc donc il faut que sénégalais yi ñu comprendre que ne situation yu mel nii man jàpp na ne meilleure posture bi mooy noppi parce que noppi moom mooy su wax ji soo noppee ba mbir yi jeex rek yow di nga mën a ñëwaat ne ah waxoon nañu lii def ngeen lii waru leen woon def lii loolu pour man seen trop parce que dañoo dugg ci loo xamante ne ne question de vie ou de mort la dafa am ñu ciy dund am ñu ciy ñàkk seen bakkan donc dañuy am yaakaar ne chauffeur bi dina dégg. dañu am yaakaar ne chauffeur bi dina xam ne ne waxuñu ko pour ne dañ ko bañ au contraire dañu bëgg mu réussir dañu am yaakaar ne chauffeur bi euh, dina déglu xam ne ne du moom rek mbir mi du moom rek daf ko bokk ak ñeneen